Alaaji Usmaan ku daan tiitaroo jaaxid la boo waxee mu ni mooy maamu ñi sant kan ñëpp te neegar la woon neegar la woon bu nga xam ni baayam du woon borom barke wante itam bëggul woon ku yeb baayam e, te booba jàpp nañ ni nit ku ñuul xelam warul man sore loolu def ci moom beneen jom lu mu jàng xeeb lu mu bind xeeb bi ma laajee listu li mu taalif ñu yónnee si ma ko taalif na téeméeri téere ak ñaar fukk ak ñeent ñun fii ci benn rekk lañ ci xam wax la commune, yitte ji des na la comme il était aussi nègre que nous téeméeri téere ak ñaar fukk ak kenn imam Shafii téere yi mu taalif tudd na ci yoo xam ni ñu ngi koy sog a tudd ci biir jamono te mooy comportement médecin yi seen digganteeg malade yi tudd na ko def na ci téere nee na jamono gi ñëw yoo xam ni dana ci poser ay problème tudd na ñi ñuy tudde al mooy attekat yi xëy na bu doon tey magistrat la ñuy wax mais li ñu xaw a magistrat yi mooy baat yi amirul muminin rekk leen di tànn keneen bi ci bokk waaw amirul muminin bu tànnee qaadi qaadi ba lan lay def lu dul tëj téeréem te déglu amirul muminina li mu bëgg mu def ko yàqu-yàqu bu rëyee ci juddoo te wax na ko moo tax ñuy werante xaadi war nañ ko fay walla waruñu ko fay ñuy werante ndax wakiilul xusuma war nañ ko fay walla waruñu ko fay wakiilul xusuma mooy li ñoo tudde tey ci arab yu bees bees bees yi li ñuy tudde muhaami yi wakiilul xusuma moo moo moo ëpp solo avocat nga tudde ko wakilul xusuma moo ëpp doole nga tudde ko muhaami wante itam ñun dañu xaw am complexe euh, yi ñoo tëral ci yu bees bees bees yi ñi koy defit layal nañ ko wax ni parce que jamono lañu bañ mu raw leen te jamono raw na leen ba noppi nag wax dëgg yàlla ndax a ah, sunu borom ak xereñam ni jamono doxe